quoi votre cas? ñun suñu cas mooy maanaam être carrément candidat incha allah et imposer notre programme mais à une seule condition parce que man j'ai toujours été voilà te je suis logique dans cela dafa am benn intention de soutien bu ma am ci Ousmane Sonko et j'ai toujours dit que su fekkee yàlla defee mu nekk candidat carrément je le soutiens loolu je l'ai dit maintenant nag comme ba léegi c'est pas le cas man je maintiens ma candidature. mais bu fekkee da nga am une intention parce que maa ngi koy wax man man man euh, dama j'ai été surprise en faisant des recherches sur toi ma gis ne tu es tu es tu es candidat man dama jàppoon ne vous étiez un soutien euh, affirmé et assumé de Ousmane Sonko mais bu fekkee ne Sonko aujourd'hui mu ngi ci guddi bu mbiru candidature am euh, leeragul je vois que le dossier va être tranché xawma le le le treize xawma le le euh, le le dépôt Euh, des des des, des parrainages c'est le le dépôt euh, des candidats c'est entre le 11 et le 26. non le dépôt des parrainages laa wax. le dépôt des parrainages c'est entre le mais moom bosam tranché guñu ko te dites-vous que c'est une procédure waaw mais dama à partir du 10 le 10. à partir du 11 euh, au 26 Ousmane Sonko va être dinañ dinañ statuer ci mbiram le 12. incha allah bu ñu statuer ci mbiram bu ñu joxee verdict euh, y a les y a léegi moom tan en attendant il a choisi un candidat est-ce que mënoo reporter ce soutien là sur ce candidat là wala yow c'est Ousmane Sonko ou rien. c'est Sonko ou donc candidat be yow doo ko doo ko parrainer. maa ngi wut sama parrainage bopp dégg ma la Ousmane Sonko laa teg. parce que c'est le candidat de l'anti-système man je suis un anti-système et je l'assume Ousmane Sonko moo nekk sama kilifa ci combat bu ñuy xeex système bi en dehors de lui du ma nekk ci ginnaaw kenn loolu je l'ai dit sur beaucoup de plateaux et je l'ai dit aussi à beaucoup de gens qui espéraient avoir mon soutien. parce qu'il y en a qui t'ont démarché. oui absolument façon bëri na mais j'ai eu la franchise et l'honnêteté de le dire parce que Sénégal soo fi xool instant bi nii ban paradoxe moo fi am du système sooy xool. ñoo gën a néew mais ñoo ëpp électorat les candidats les candidats les candidats du moins les candidats de l'antisystème ñoo gën a néew mais ñoo ëpp électorat les candidats du système ñoo fi ëpp mais ñoo gën a néew électorat mais yow ñan nga considéré comme les candidats de l'antisystème Ousmane Sonko mhm. man Cheikh Omar Diagne exemple yéen ñett yéen ay candidats de l'antisystème bëriwuñu donc ñi si des ñëpp ce sont des candidats du système non am na ñoo xam ne du ma ne c'est des candidats du système mais ba léegi maanaam affirmé wu ci xeex système bi fi toll parce que heure bi nii ku am lecture beneen bu dul que c'est le combat du système et de l'antisystème si fu Sénégal toll nii mooy que amoo lecture politique mën nga dem tëdd nelaw parce que foofu la réew mi toll. te loolu Macky Sall en est conscient Ousmane Sonko en est conscient. mais est-ce que amul une mutation une évolution euh, ci gis-gisu système bi Pastef amoon. non Ousmane Sonko. xam euh, nga Ousmane Sonko man je di que c'est le dérèglement climatique de la politique sénégalaise maanaam dafa ñëw démystifier politique xam nga ñu ko politique affaire de fief la woon affaire de maanaam maa moom fi maa moom fële wala affaire de am ay yenn yi la quoi mais léegi Ousmane Sonko dafa ñëw ci jëmmum kese base politique la sa décision base politique la sa parole base politique la joxoñam sax base politique la loolu la yàlla def si moom te man dama ko war nangul donc voilà loolu kese la maintenant nag ñi fi toog di wax ay maam moom fii maam moom fee fii c'est mon fief fii c'est mon titre foncier code yooyu Ousmane Sonko daaneel na ko. ah nu mu ko daanelee Ousmane Sonko Ziguinchor c'est son c'est son fief. il a conquis c'est le Sénégal qui est son fief. te loolu la Macky Sall xam moo tax mu koy jéem a faagaagal c'est pas le c'est pas Ziguinchor la mooy Ziguinchor Ziguinchor ville la comme Dakar comme Kaolack comme feneen c'est le Sénégal. Ousmane Sonko c'est-à-dire c'est le président préparé des Sénégalais si on peut dire comme ça et c'est ça la vérité en naa et conscience ñëpp xam nañ ko même ñu ko noonu xam nañ ko dañ ko xeeboon au début candidat virtuel Facebook et tout fan la mujjee taxaw <laughs> ñëpp di tremble léegi mi ngi noonu récemment yàlla wane na ko moo defar ay maire moo defar ay député léegi mi ngi noonu loolu kese la incha allah tamit bu fekkee ni dafa nar a wéy moo nar tam defal le prochain président et c'est ça la vérité. moo nar a defal le prochain président comment. su ma nee moo nar a defal maanaam mooy ni mu defaree député yi defee ay maire su situation bi continuer nii moom moo nar a defar le prochain président. mais comment je je je comprends pas c'est-à-dire. parce que moom moo téye doole moom moo téye la force populaire de ce pays là. donc donc. donc. ku muy tànn wala ku muy jàppale kooku moo nar a. Euh, incarner. Euh, déggoo déggoo moo tax dama li ma wax dama ne la Ousmane Sonko physiquement c'est une base politique sa décision est base politique sa parole est base politique son pointage de doigt est base politique.